الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وخديمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tëdd wi ñu nekk muy weeru ramadan wi nga xam ne ci la sunu borom subhanahu wàccee téeréem bu tëdd bi nga xam ne li yàlla bëgg ñu nekke ko ci kaw suuf lépp ca la ko dëxëñ waaye lim yàlla bëgg nu moytu ko diirib nuy nekk ci kaw suuf lépp ci la ko dëxëñ waaye mu wàcce ko ko nag ci guddi gu mag goo xam ne wax na ne moo gën junniy guddi yoo xam ne guddi googu ca yeneen guddi yu dul guddi googu boo limee ba mat junni guddi googu moo ko ëpp doole muy laylatul xadri xayrun min alfi shahr guddi googu nag di koo xam ne moom lañu ñu jullit yépp di dàkk at mu nekk ci biir weer wi ngir bëgg a daje ak moom eh, soxna su tedd sa di soxna Maymunatu bintu Xaadimu Rasuul nag aman ci tawfiix bu rëy ci di ko màggal ak di ko dundal ci ni nga xam ne moom la ko sunu borom ano ak yonentam ba ak jëwriñu yonentam ba di xaadima rasul di way juróom santaane ñu di ko ni dundale te la ci jiitu mooy delluwaat ci téereb yàlla bi nafar ko def ci ab lim bu rëy def ko àddiya eh, ci bis bi waaye daara yi nga xam ne it ñoo séddoo alxuraan ak ña leen di jàngalit soxna yi si jagle leen ay tiraanga yu yaatoo yaatu e, ci darajey bis bi ngir soññee leen ko waaye doon ko dundale itam nag ci fàttali nit ñi lan mooy solos bis bi ak yeneen yi nga xam ne yépp jullit yi war nañ koo yittewoo ci seen wàllu diine ñu daan profité ci bis bi di ko ci def e njaboot gi ci njiitul Cheikh Mahamadul Mahfous ak Cheikh Abdoul Ahad mi jëwriñam ci liggéey bi muy Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma e, ak Baye Cheikh Awa Balla mi nga xam ne itam mooy taawu Serigne Mahamadul Mahfous feggoo ak sëriñ e, Abdoul Ahad ñoom itam ñu taxaw ci guddi gi bu taxawaay bu am solo ci ni ko soxna si bëggee woon Eh, ci di ko dundal ci wàllu xam-xam di ci def ay plateau ak i waxtaani diine yu yaatu yoo xam ne ay thèmes yu bari eh, lañ ci jël yépp rek di dellowaat nit ñi ci li nga xam ne mooy njàngaleem lislaam ndax bis yu mel nii loolu la ci alxuraan wax yàgg nañ ko wax eh, mooy wasakkirhum bi ayaamillah inna fi dalika la ayatin li kulli sabar shakur nañ leen di fàttali bis yi yàlla yi nga xam ne dañuy bis yu tedd yu am ngëneel yu rëy wala xew-xew yi ci am waaye e, bu ñu leen koy fàttali it nañ fexe ba fàttali leen e, la nga xam ne moom la bis ba làmb e, ci ay ngëneel waaye taxawaay ak yitte ji nga xam ne moom lañ war a am ci bis bu mel noonu ak yeneen bis yi waaye moom la war a amit ci fii nu nekk ci kër gu àdduna muy alquran soññee ci lu baree baree bari wax dëgg yàlla fa tabarakallahu laxat kaana fii qisasihim wala fii qasasihim ibra li ulil albab wa kula naqusu alayka min anbaai rusul maa nusabbit bi fuaadaka wa jaaka fi aati alxaq wa mawida wa dikra lil muminin ay yoo xam ne dafay soññee ci ne bu ñëwee war nañ koo dundal waaye war nañ koo dundalee eh, jël ci ab yóbbal fàttali ci nit ñi loo xam ne dana nekk ab yóbbal bu ñu war a yóbbuloo ci seen wàllu diine wala seenu nekkin ci kaw suuf <coughs> loolu nag moo tax bis ni ki tey nag <coughs> ñu tànn thème bu am solo ci lislaam waaye am solo ci yoonu murit Euh, muy li ñuy tuddee métier formation professionnelle muy muy muy muy muy muy jàng métier ak jàngale métier ak taxawaayu métier ci biir euh, diine ji ak ci biir euh, askan wi muy penc mi ak société bi loolu di lu am solo loo xam ne sunna la ndax sunu borom subhanahu dañu indi fii ci kaw suuf nu nekk xalifa kuutaayam ci kaw suuf war ko wut ci ñëpp ak lépp E, ci dundal suuf si e, ba nga xam ne tey kootaay lii danañ ko dëggal ci taxawaay yoo xam ne dañ koy am bu baax a baax ci liy defar sunu ëllëg waaye diirub nu fiy nekk itam li yéwénal sunu nekkin fii ba duñu jaay sunu ngor e, wala sunu diine di ko jënde lu nu am waaye lépp lu am rek ci sunu doole ak sunuy pexe yi tege ci ni ko sariat tërale ca lañ koy amee muy muy sàkku ak amin wu lew woo xam ne day sukkandiku ci wàllu liggéey liggéey yooyu nag daf cee bokk métier euh, métier ñu gis ne yonente yi yëpp euh, kenn ku nekk da ngaa amoon métier kenn ku nekk da ngaa amoon métier euh, ñenn ñi maanaam commerce ku mel ni yonente bi sallallahu xam nañu ne lu jiitu sunu borom di ko yónni métier am bokkoon na ci sàmm ak commerce waaye yonente yeneen yi ci des yëpp itam kenn ku ne amoon nga métier. Eh, am na ci ñoo xam ne seeni i ci wàllu xarala ji la jëm jëman ki nga xam ne mooy abul anbiya muy sayduna ibrahima xam ngeen ne métier ci lépp lu jëm ci xarala gu jëm ci wàllu dénk mu yatt ay gaal ak lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu menuiserie ci wàllu dénk eh, loolu ci la ko sunu borom subhanahu defalan ko ba ki yonent yàlla Moussa yàlla defalan ko xarala gu rëy ci eh, lépp loo xam ne moom itam lu jëm ci ràbb ak wàllu lu jëm ci textile muy lépp lu jëm ci wàllu ku ràbb ak ñaw ak yooyu yëpp it sunu borom da ko caa defaran kiiwal comme ni koy yonent yàlla daawooda tam eh, moom itam yàlla defaran ko métier ci lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu weñ gu ñuul eh, muy li ñuy tuddee menuisier métallique wala xarala gu jëm ci loolu eh, nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku nekk sunu borom subhanahu am na métier moo xam ne ci wàllu xarala Eh, moom moom moom nga métier woon amu ci kenn ku amutoon métier ci yi nga xam ne ay xara xeeti xarala yoo xam ne eh, seenub société wala seen pénc wala seenu nekkin da koo soxla woon eh, loolu moo tax itam kii di Seexul Xadiim radiyallahu anhu mi nga xam ne dafa ñëw ngir dundal loolu nga xam ne mooy ndonal yonente yooyu yëpp trace bi ñu fi bàyyil muy héritage bi ñu fi bàyyil rawatina nag ki nga xam ne moo mujj ñëw tey seenub sang ñoom ñëpp te risaalaam ëmb la risaala yooyu ñu àddiwoon woon yépp ëmb ci wàllu lu ñuy jàngale ci luy defar pénc mi ak luy defar ëllëg eh, kooku di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it eh, nga xam ne moom la sëriñ bi ñëw di ko liggéeyal eh, moo tax Seexal Xadim itam ci biir njàngaleem mi nga xam ne jaamu yàlla ak liggéey ci la fondé yoon wi jaamu yàlla gi defar ëllëg waaye liggéey bi nga xam ne mooy yéwénal sunu wàllu àdduna bokk na ca xeeti liggéey yi nga xam ne Eh, doon na ko jàngale eh, doon ci tarbiye nit ñi muy lu jëm ci wàllu métier waaw mu jëm ci wàllu métier muy mboolam xeeti xarala yi nga xam ne yëpp tey eh, dañ ko mënta ñàkk loolu euh, buñ ko seetee bokk na ci li nga xam ne moo koy gën a màndargaal ndax sëriñ bi ci boppam li ëpp ci am njàngaleem ma ci gën a kawe lool diirub bi wootee wooteem bi mooy lépp loo xam ne enseignement théorique la théorisé na ko it da koy matérialiser E, ba ñëpp gis ko wala sax mu jiitu ci e, njàngale ma matérialiser ko ba noppi e, dog ko nag théoriser pour ñeneen ñi nga xam ne fekk ñu jamonoon bu ñu ñëwee man cee référé wu euh, loolu moo waral moom gis nga ci am njàngaleem gis nga dafa wax ne wa ali himmataka fi umuri dunya wa uxra tuxsabil ujuri na nga yëkkati sa yitte ba mu kawee lool ci lépp loo xam ne lu luy yéwénal sa wàllu ci kaw suuf mooy lépp loo mënta ñàkk fa nga nekk mu yéwénal sew nekkin nanga def sa yitte ci am ko walla man ko waaye lépp lu yéwénal sewalu wàllu àllaaxira it eh, na ko na ko na nga ci def sa yitte ci biir cadre boobu nag eh, moo waral mboolem ñi mu doon yabal ci seex si eh, ak njabootu boppam gi ñuy sañc ay dëkk dafa leen daan dénk ne leen nangeen ngeen fexe ba na ngeen fexe ba foofii ngeen di dem ku ngeen àndal dem fa walla mu gàddaay fekk si leen fa ngir wéttalikoonteeg yéen ci wàllu yàlla akuk taalibe na ngeen fexe ba la mënta ñàkk ci luy yéwénal aw nekkinam fii ci kaw suuf ak la war a jiitu loola muy la yéwenal aw eh, aw eh, diineem ak yóbbalu ëllëgam bu mu génn barab boobee di ko wuti faneen loolu moo waral eh, Cheikh Mahamadul Moustapha bi mu sañcee Taayif Eh, dafa wax sëñ ma dem eh, ne ko nag ma wutal ab kaang ma mokkal alxuraan man koo jàngale nangu koo jàngale ak fóore ju jeexal téere yépp eh, yi ñu war a jàng ak di ko baaxoo jàngale fii ci réew mi ci wàllu xeeti xam-xam yi gën a kawe ku ko jeexal xereñe ko waaye man koo jàng nangu koo jàngale waaye boo ca noppee nag nag ma wutal ab wuude akub tëgg akub lawbe boo xam ne bu bu bu mokkal seen métier xereña ko lool waaye amit jikko joo xam ne juñ eh, mën a jaxasoo ak moom la muy jikkoy jullit dëgg-dëgg joo xam ne dana tax fu mu nekkit ña muy jëflanteel danañ mën a jëflanteek moom ci ni ko lislaam bëggee eh, liggéey ba muy liggéey dana ko fonk jox ko yitte ji nga xam ne ci wàllu xereñ ak sellal noonu la ko lislaam léegi ba loolu lépp yembee mu xamal ko ne ko nag ca la ko waxee na ko ne ko xam nga lii li tax ma wax ko mu ne am ne ko sëriñ bi e, bi mu nuy yebal man ak e, sama rakk ju baax ci Mouhamadul Fadil ak sunu baay sëriñ ma sàmba kenn ku nekk ngay sëñ ci fii muy daaru karim bu sëñ ma sàmba ndit yi sëñ Fallou titoo di bu sëñ Mouhamadul Moustapha def leen a wax muy loolu ma wax léegi e, na ngeen fexe ba ku ngeen àndal dem fa wala mu gàddaay fekk si leen fa bu mu génn di wuti lenn lu ngeen mënta ñàkk ci luy yéwénal seen ñaari eh, anam yooyu wàll yooyu muy wàllu diini ji ak wàllu nekkin wi mu ne ko xam nga ne eh, lawbe bi eh, dab yi jigéen ñi jëfandikoo ci biir kër gi maanaa lawbe bi moo koy defar waaye tool yee itam liggéey bañ fay def lépp lu cay gopp baag ak ya ca aju ca bant lépp loolu law bi boo koy def waaye weñ nga cay dem nag moom itam ab tëgg moo koy def loolu kon mënuñoo ñàkk kon lawbe bi ak tëgg bi ci wàllu googu waaye eh, wuude bi itam eh, tey dàll yi ñuy sol li ci ëpp lépp wuude bi moo koy liggéey eh, waaye fas yi ñuy war ba mën a dox lu lu lu sori lool te duñ ko yëg duñ ci yëg ab coono lay tege ca kaw muy teg ga ba duñ ko yëg moom it wuudee koy def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu muy loo xam ne fa tabaarakallaahu kon muy base boo xam ne tey laltaay ji mooy E nit ñi liñ mënta ñàkk ci lu yéwénal seen wàllu nekkiin nañ koy am fa ñu nekk te loola nag xeeti xarala yi di métier yi daf caa mënta ñàkk loolu moo waral bi mu ñëwee njaareem e <coughs> fa tabaarakallaahu foofa nag fa la matérialiser loolu bu bu bu bu yéemee yéeme e ndax dafa xam ngeen ne njaareem donte mu ngi ci digg bawal muy muy muy muy muy li nga xam ne tey mooy mooy goxu bawal eh, nekk capital sax administratif bu bawal ci jamonoy tubaab yi eh, nekk foo xam ne it fa tabaarakallaahu suuf su yaatoo ko wër eh, bi sëñ bi ñëwee njaareem foo xam ne mën nañ faa bay ay tool ay daaray tërbiye yaatu waaye sëriñ bi ci moom ci jàngale lépp njàngale moo xam ne maanaam day mattale lépp dafa daal di bàyyi xel ci réalité milieu social boobu mu nekk Euh, ba mu nekkee ca diggante Touba ak i Daaru Salaam euh, ak baar yi ak ci barab yooyu yëpp tey donga yi bu ñuy tarbiyewu liggéey ba liggéeyu bay la woon ndax foofa mbay moo fa not waaw ndax ci bu dee ci ci ci dëkk boobu ci dëkk yi mel noonu tey euh, nga xam ne ci bay ak sàmm lañ lañ baaxoo ku fa nekk kon mbay mooy métier mi nga xam ne mooy ma fa gën a not donte lee nag dëkk bu nekk sax dana am xeeti métier yii waaye nag bi mu ñëwee njaareem E, donte ay foofu suuf su yaatu moo ko wër e, amul fenn fuñ la mën a wax ne ay daaray tarbiye yooyu sëriñ bi yu leen tarbiye wu di bay mën nañ la ko wax ci li wër njaareem waaye la nekkan ci biir kër gi nga xam ne moom la donga ngay boole woon ak jaamu yàlla ga lay yewenal seen e, seen diine ci wàllu liggéey loolu ay métier la woon yoo xam ne dañ ko doon jàngale ak di ko jonjoo ci biir période boobu ñu nekk njaareem mu bokk ci atelier yi nga xam ne eh, moom la ca jiitalan gën ko caa fonk lool ndax dafa aju ci lim gën a fonk muy alquranul karim ak téere xam-xam yi ak xasaayid yi nga xam ne ci la tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cordonnier yi ba eh, bi mu ñëwee foofu dafa jël eh, ñi nga xam ne ci njabootu boppam ki ko gën a jege la jël jëli genn góor wuude goo xam ne moom loolu mooy métier am ñu di ko góor gi saa xewar taal moom la indi woon ngir mu jàngal ñi nga xam ne ñoom la bëgg a ñu mic ñu xereñ ci wàll googu ba mën ko caa féete eh, métier moomu nga xam ne mooy métier kuude muy ay jaafara ak i maxtume li ñuy tuddee maxtume ak i chemise en cuir yi nga xam ne lépp maanaa ay jumtukaay la yoo xam ne yu ñuy waggare téere bi yàlla bii di alquranul karim ak téere yi xam-xam yi ak téere yi xasaayid yi xam ngeen ne jaafara e mooy lu mel ne chaque en cuir lay doon lu mel ni mbuus e am tëjukaay e moom ca la ñu daan def te kaamilu alxuraan bi wala téere xam-xam wala téere xasida bi nga xam ne e, moom du déplacé wu ci boo noppee ci taabal nga koy teg boo demee ba war caa jëfandikoo génne ko ca mbuus ma e, jëfandikoo ca boo noppee delloo ko ca mbuus ma tegaat ko ca taabal ja kooku mooy jëfara maxtu bi mii nga gis nag muy sol te waa Hizbut Tarqiyyah gën cee ràññeeku loolu nag saak ak kiwiir la boo xam ne kuy déplacé la téere xam-xam wala téere alquran wala téere xasiida lañu ciy def waaye euh, ràngoo ko comme ni ngay ràngoo ab saak waaye ci jamonoy sëriñ bi sax ne ñu dawul fës ni ñu koy fësali ci biti waaye dañ ko daan def ci ron poqutaan jël turki njaareem wala turki dara teg ci nga xam ne du feeñ kiy déplacé wu moo koy yor ngir waxtu wu demee ba war a soxlaa jàng alquran man koo génne téere alxuraan ba mu denc ci biir wala bu dee téere xam-xam la ca def wala bu dee téere xasiida loolu kon sac à cuir la boo xam ne kii déplacé wu moo ko daan yor waaye téere alxuraan wala téere xam-xam lañ ci daan def mu am lu ñuy wax chemise itam loo xam ne lu mel ne ay feggu la yoo xam ne moom itam moom itam daa nañ ko aaree alxuraan ay feggu yoo xam ne moom itam dañ koy dañ koy dañ koy buudee ak der eh, mën naa nekk saaru carton waaye lañ koy lañ koy gën a aaree ba mu gën a rafet gën a ñoŋ itam mën naa nekk der Eh, loolu it lépp foofu lañ ko daan defee ak dàll yi nga xam ne itam sëriñ bi da ko daan solal boppam muy neppe eh, ak karbat eh, neppe dàll wu épin lay doon woo xam ne telin wi day day day day day day sew mu mu mu nooy lool nga xam ne da ko mën a lem sax daanaka dugal ko ci poos nga xam ne lay doxantoo ci biir kër gi bu dee nag karbat nag moom dàll la woo xam ne mooy mooy ëpp sécurité ndax suuf gi dénk lay doon wu xaw a yëkkatiku der tege ca kaw waaye yooyu yëpp tey ci atelier boobu lañ ko doon liggéeyee eh, nga xam ne tey ñi ko gën a jege ñoo ca nekk di sëriñ Mouhamadou Mamoun mu mu mu mu maam Cheikh Anta Gaawaan sëriñ Xaas bu bu bu bu sëriñ eh, Afia ñoom ñoom ñaar ñaar ñaar ñëpp di ay rakki sëriñ bi eh, naka noona sëriñ Modou Massamba Diop ak sëriñ Modou Amar bu sëñ Paate Amar. ak ñeneen ñoo xam ne ay ay doomi soxna lañ yoo xam ne sax loola du seen métier waaye sëñ bi pour loola da cay jàngale lu rëy rëy ndax Sénégal dañoo demoon ba xeeti métier yooyu ñu am catégorie sociale boo xam ne moom lañ ko féetale jàpp ne amul keneen ku ko sañ a def e, ba léeg sax am ci métier yoo xam ne sax e, maanaam ñenn ñi dañuy ëppale seen bopp di ko def te loola yëpp di ay métier yoo xam ne ñi yàlla tànn e, ñu gënal ko ci mboolem li mu bind mu yonente yi Eh, di sangi ñëpp eh, métier yooyu yëpp métier woon nañ ko muy lii ma wax lépp tey ay métier la yoo xam ne tey métier eh, ni ñu ko waxee ci njëlbéenu waxtaan wi ay ay yonenti métier woon nañ ko léegi nag ngir sëñ bi dindi loolu ci boppi nit ñi xam ne métier dooru luy teqalee nit ñi amul benn métier boo xam ne kenn war na koo jombale seen bopp loolu moo waral métier yooyu nga xam ne tey benn catégorie sociale muy suñu bokki udde yi rek lañ ko féetale woon mu seet ñi ko gën a jege ci njabootu boppam goo xam ne eh, maanaa maanaa ñoo ko gën a jege bu bu dee loo xam ne tey dañ koy ëppale nit wala lu mel noonu ñoom ñoo ci war a jiitu waaye tey mu di leen ko defloo ngir joxe ca ay leçons yu rëy a rëy Eh, ci am njàng nga xam ne tey fa tabarakallahu lu yéeme la seen eh, way jur di sëriñ ma sàmba mooy ki leen doon taxawu eh, liggéey ba di ko corriger lu ca lu ca lu ca lu ca war a jubbanti mu jubbanti ko ca loola muy cordonnier yi bu bu bu bu nekkan foofa te sëriñ As Guédé bu di kenn ci xalifa yi Mouhamadul Mamoun yi fi mujj moom nettali na ma Eh, lu yéeme ci ci New Jersey boobu ñoo ngi nekk états uni may may may may may am ñu ma toogal ne di di leen wax xissa bi ak eh, taxawaay yooyu moo daal di may déet kaay kaay leen fii kay ma wax leen ci lu gën a lu gën a loo xam ne dara du ko dindi waaw daal di may nettali xissa bu am solo buy firndeel loolu ni ma dafa am benn jamono boo xam ne ci waxtu nawet la waxtu ñu toll ci bay baxaw eh, Cheikh Mouhamadoul Mamoun way juram nekk ci dëkkam boobu jox tawfiix ne mu nekk fa ak moom nee nañ mu am benn yoor-yoor eh, benn wuude bu jóge njaareem du Mor Saw ñëw indil ko yére yi yére yi fas ak teg ak ak yi ci war ànd yëpp ak ay dàll eh, nee na am ay teraanga yu mu ko jox eh, mbubb ak lëf ci xaalis ak yëfi teraanga yewee ko ko ba mu demee mu jëlër bi dàll yu ne ko kii dem daal ma as de kii maa ko dàqatoog aw dàll daal may wax moom ni mu ko daan doge. Eh, bi mu ko waxee lépp it kenn ku ci nekk ci ña fa nekkee ni la nga gën a féetewoo gënoon ko gën gën sa sa sa xarala gën caa gën caa jëm ca ñoom ña fa nekk leen ñëpp mu ne ko mbaa jàppoo nag ne der yañ ko daan defee der yu ñu laxunde ba àggal andil ko la mu ne ko ah ma eh, nu mu demee woon ba eh, sëriñ bi mu ne ko ah noo ko daan gàtt yi ñu daan rey foofu ci kër gaak ak yooyu yëpp de der yi lañ ñuy jox noonu non maanaam na ko wuutee baaxoo def ci. maanaa teqale ko ak kawar gaa gépp laxundi ko ba mu àgg eh, ñu wulli ko ba mu nooy nepp ba dog ko mën a jariñoo noo ko daan defal suñu bopp waaw mu ne ko noonu noo ko daan defal suñu bopp foofee waaw lépp ci ndigalul sëriñ bi waaye yàlla defal na ci tawfiix loo xam ne lu ci nekk rek dañuy dem ba dàq ko ñi nga xam ne eh, ñoo ko baax woon di def loolu muy lu am solo moo amaat beneen atelier boo xam ne moo ca toppaat muy eh, atelier ndax bii moo jiitu woon ndax alxuraan ji nga xam ne bagage yi alxuraan la lañ ciy def ak ak bagages yi euh, xasida yi ak bagages yi téere xam-xam bi moo tax moom la jiitaleen ci atelier yëpp gënoon ko ca fonk euh, muy bu am solo boo xam ne tey euh, noonu la demee woon nga xam ne fa tabaarakallaahu bi ñu demee ba ñooñu yeewee ko it baneen ki ki ki jiitewaat atelier boobu baneen doomu soxna muy sëñ Mbay si tenewful bàyyi Mahamadan sëy mee nekk ci buntu kër si bunt Mortada di jaay ay téere di doom yi soxna joo xam ne bi ñu koy indi ci sëriñ bi kaamilu alxuraan la indaale mu dëkk ca eh, ngen sëyeeg eh, ak ak askanu cëy wi nekk njàmbur eh, di doom yi soxna joo xam ne jàng ak jàngale lañ baax woon waaye moom it fa tabaarakallaahu moo mujjee atelier boobee di defar jaafare ak ak ak maxtume ak lépp lu ñu doon def dàll yi nag sëñ Maodo Mamoun waxan na sëñ Askere ne ko bu dee marakis yi moom sëñ bi daaw ko faral di sol waaye eh, moom da ko daan eh, kilifay diine yi ñëw eh, di ko siyaare si jóge ci yeneen kër ñoom la ko daan jox waaw mu mel ni ay ay cadeau wala ay ay hadaya yoo xam ne yu mu laan daan jox ñu di ko barkeloo waaye moom neppe la daan sol ak ak ak karbat loola it di lu am solo naka noonu yit nii nga xam ne tey muy muy dàll yi muy marakis yi nga xam ne mooy marakisu murit ni ñuy waxee café murit mën nañu wax marakis murit ndax marakis xam ngeen ne marakos bi ci Maroc Eh, ñoom dañoo spécial ci daa dàll fa lañu ko daan importer di ko indi eh, muy dal dàlli marakis ñu naay dàlli ñu naa ko wax marakis léegi nag eh, dañ ko sénégaliser sëriñ bi nag daf ko daf ko daf ko fexe moom ba mu dëppoo ak l'islam ndax marakiis yi jóge Maroc telon bi dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay telon bi dafay dafay dafay du doon telon bu gudd bu gàtt lay doon boo xam ne boo solee ay yére yu a gudd mën naa puubu sëriñ bi nag pour bëgg a waggar dëgg la sax mbubbum sunna la bëggat ñëpp di ko sol mbu moo xam ne tey du buubu euh, ba nga xam ne tey day laal suuf mën a taq sobe booy dox waaye nag ngir gën a sàmm loolu dafa taxan marakis yooyu mu doon wax nañuy nañuy nañuy yéegal talon bi ba mu gudd ba nga xam ne boo soree ay yére itam euh, lu yére yee gudd gudd du laal suuf loola Euh, muy muy lu am solo loo xam ne tey moom nga gis sax ba tey suñ waa bokki isbu tarxi nga seen marakis yi lool loolu la mooy mooy genre marakis yu guddi yooyu ñuy sol beneen atelier ba ca toppaan mooy atelier menuiserie boo xam ne moom it suñ Cheikh Fatak ko euh, euh, di nijaay Cheikh Mouhamadul Mortada di nitu yàlla bu mag di bokk ci ñi nga xam ne tey sëriñ bi moo leen tërbiyal boppam di doomi soxna moom it ju mag ak sëriñ Mor Mbay Siise na jaar moom it di doomi soxna ju mag Eh, ak sëñ Modou Amar doomi sëñ Paate Amar ñoom ñoom ñii ñoo ña nga xam ne ñoo yore woon atelier ministère bi nga xam ne moom it lal yi nga xam ne ci la sëriñ bi daan teg alxuraanul karim ji ak tablette yi yooyu yëpp itam ñoo ko daan liggéey waaye moom itam nii sëriñ Modou Mamoun wax ci der wi eh, sëñ Cheikh Fatak ku nettali na ma eh, man ak doomam sëriñ Xaadim Diop nekkat bi ñu koy laaj loolu mu ne bu jàpp ne. ay dénk yu ñu raboote ba mu ba mu ratax lañu leen daan indil déedéet ay buuti garab yoo xam ne noonu lañ ko daan dagge indi am na ñoo xam ne tey ñoom ñoo koy taaye eh, ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu nekk ay ay ay ay ay ay coupon ay kii ñu jël ko nag eh, di ko raboote ba mu ratax ba ndang nee na jël diw eh, wëttéen moom lañ cay diw muy secret bu rëy nee na suul ko ci biir naaj bi ba mu am fa lu war a mat maanaa ay ñaari ay bis nee na moo tax buñ ko buñ ko génnee day day day mel ni dañ ko day mel ni tey diñ ko wérne waaw day mel ni dañ ko wérne day day day day yor couleur bu rafet waaye da koy protéger itam ba du am du bu aman santan euh, yi du fisir loolu lépp itam da koy diw wëttéen euh, ak diw buy yooyu yëpp nee dañ ko daan jëfandikoo pour loolu pour protéger dénk yi waaye waaye waaye jox ko couleur bu bu rafet nee na bu ñu noppee nag ñu defar ci ay lal euh, defar ci ay tablette ak lépp loo xam ne te ay gaal gaal yi nga xam ne moom la sëriñ bi di denc téere yi yëpp ñoom ñoo ñoo ñoo ko doon defar mu amaat beneen eh, atelier boo xam ne tey atelier lépp lu jëm ci basang la ak romb jaan eh, ak lépp loo xam ne lu ñuy lal rek basan romb jaan nga gis romb jaan lu yéeme la nga xam ne moom itam eh, dafay am boron boo xam ne ñaare bu ñuy julli ilmaan ji ci lay toog waaye am boo xam ne bu kaare la Eh, nga xam ne moom itam gis nga romb jaan nga xam ne moom itam eh, day tax boo ko boo ko lalee niñ ñu koy ràbbe eh, pegg bi day mel ni lañcat waaw nga xam ne tey lu ko jege rek day maritari jaan bu bëggan boo fi tëddan bu ko bëggan rek bu ko rombee rek bu ko riisoo rek day daal di arrière ndax li ko wër lépp dañ koy protéger ba mu mel ni lancette yooyu yëpp tey di yoo xam ne dañ ko daan defar foofu ay romb jaan ak i basang ak i tuuj ak i njoowaan ba ci wantaay yi nga xam ne moom lañ ko daan eh, uppee eh, nga xam ne ay buum lañ koy takk di ko joow eh, mu mel ni ventilateur loolu dañ koo fabriqué woon nga xam ne day yaatu lool day yaatu lool saaro lu mel ni dénk ci lu mel ni dénk xaw a woyof lañ ko daan defee ak lu mel ni wala carton boo xam ne bu xaw a ni contreplaqué lay xaw a demee noonu lañ ci lañ ko daan liggéey am na lu ñu koy defee noo xam ne takk ci ay buum Eh, bu nekkee ci gannaaw di ko puus nag day mel ni day mel ni ventilation bi am tey loolu lépp tey foofu lañ ko doon liggéey atelier boobu Sëñ Mat Juuf eh, làmbaay bokk na ci ñu jiite woon eh, ña ko doon def Sëñ Mat Juuf Lambaay doomi suñ ca doomi Sëñ Aliou Juuf Lambaay nekk nekk nekk premier xalifaam moom ci kër ga la yaro bokk na ca moom it la mu moom ñu jiite woon atelier boobu Euh, mu amaat nag euh, euh, beneen atelier boo xam ne bu bu yéeme boo xam ne sëñ Abdou Khadir Sall muy ñaw nga xam ne si moo daan ñawal sëriñ bi waaye moo daan formé itam doomi kilifa yu baree baree bari doomi kilifa yu bari ci yoon wi ci lu yéeme ñoo daan ñawal seen bopp seen yére di ñawal seen i way jur seen yére ci aski ci kilifa yu mag a mag a mag yoo xam ne dañoo jàngan ñaw ba man ko di ñawal seeni i wayjur ay seen i yére di ñawal seen bopp seen yére am na ci ñoo xam ne bu ñu leen tuddan tey ah nit ñi dañuy waaw duñ duñ mën a comprendre sax ne waaw te te fekk ñoom lu ñu daan ay machine lañ yoroon seen biir kër di ñawal seen bopp ay kilifa yu mag a mag a mag même ba ci njabootu sëriñ bi sax loolu lépp tey muy muy muy muy loo xam ne tey sëñ du Khadir sàll moo moo daan ba leen daan formé bu baax a baax ci xeeti ñaw yëpp nga gis tey eh, lu demee ni ki turki ak turki dara xam nga eh, dañuy wax ne eh, kii la boo xam ni style la boo xam ni turki la bàyyi ko moo tax sax dañuy wax naa turki jooju turki la waaye ala kulli alin liñ mën a xam rek mooy eh, xëy na loolu dafa mel ni daal xam naa ne lu jëm ci xeetu dara dara moom lu yàgg la ci lu ñu ximiin la ci ci Afrique waaw Afrique yëpp tey surtout ñi nga xam ne nit yi diine lañ fi di suñ bokki aw say nekk euh, Niger ak Nigeria ba wàcc si ba ci tawaarix yi di di ñëw ñu nga xam ne ñoo nekk Sahara occidental ba ci naar gànnaar yi e ba ci ay caat ba côté yooyu yëpp daal xam naa ne ci ci ci Afrique ba ci suñ bokki naar gànnaar yi moom surtout meur ñoom ñëpp dara moom lu fi yàgg la style bi nag mën naa mën naa wuute e ci waaw dogin wi ak coupe bi waaye lu fi yàgg la daal waaw dafi yàgg la léegi nag euh, ci biir njaareem euh, la ñu créé moom la ñuy turee turki njaareem ak turki dara parce que dara yi nga xam ne moom la ñu xaman mooy dara yi nga xam ne day am poos poos bu dënn euh, moo xam façon bu naar stylo naar gànnaar la wala bi nga xam ne dañ ko mujjan sénégalisé eh, waaye noonu lay bindoo muy muy dara turki turki turki dara nag eh, njiit laay la njiit laay la loo xam ne moom la ñuy jiitloo dara ji li ci gën a bari moom la wala wala ñu di ko féexloo nga xam ne day am lu mel ni njamput kooku mooy turki dara léegi bu dee turki njaareem nag eh, moom itam moom itam modèle la boo xam ne Sëñ Abdou Khadir Sey moo ko moo ko fent nga xam ne moo tax ñu naa ko turki njaareem nga xam ne lu mel ni Euh, fox ya bu gudd lay doon mooy li ñuy li nga xam ne tey bu ñu ko doon wax tey mooy mooy mooy mooy lii mel ni bàyyilaat bi waaye nag euh, bu melutoon noonu ci jamonoy sëriñ bi nii bàyyilaat bi yaatoo lool nii loxo yi yaatu boobu melutoon noonu euh, dawut amit poos yi dënn comme nii muy amee déedéet poos yi wet lay am daanaka poos yi wet lay lay lay lay lay doon day day mel ni daal ab forog la bu gudd lool bu am poos yi wet am njamput kooku moom la ñuy tuddee turki njaareem ah, moom moom itam eh, danañ ko féexloo moom ñu ñu bari di ko di ko di ko féexloo yenn kilifa yi eh, am ci ñoo xam ne itam sax dañ koo amélioré ba nga xam ne sax danañ ko waajee di ko di ko demee nga xam ne tey eh, bu fekkee ne la ci ëpp lépp muy muy muy muy dafa nekk lu mel ni kii percale wala beneen tiisi boo xam ne bu bu kii lay maanaam dañuy fexe ba la nekk ci dënd ba ak la nekk ci gannaaw ba ñu def ko bassin lay doon nga xam ne muy muy muy lu rafet daal style la bu rafet la boo xam ne mooy foofu lañ ko doon eh, ci ci njaareem muy atelier boobu nga xam ne eh, loolu eh, ba ci ba ci ba ci ba ci xeeti xaftaan yi xaftaan yi xaftaan yi yu rafet yoo xam ne lañ daan def foofu mu itam ci njaareem xaftaan yu jëkk ya nga xam ne du am xàll ñetti xàll yi doon waaye day nekk xaftaan bu rafet boo xam ne du am ñetti xàll yi ba beneen bi gannaaw lañ ko amélioré ba muy am ñetti xàll yi nekk ci digg bi yooyu yëpp tey muy style yoo xam ne tey dañ ci daan def euh, tafannun bu yéeme euh, muy atelier boobu mu amaat nag beneen atelier boo xam ne mooy bi def ba euh, maanaam li muy habitation bi muy néeg yi ak mbaar yi ak tappaati seng yi kooku moom sëñ Bakki Diouf moom la jiite woon nga xam ne collectiru kër gi muy muy muy sàkketu seng wi ko wër ak dog yi ñu def ci biir yëpp nga xam ne moom it seng lay doon ak ak baraak yi nga xam ne mooy néeg yi euh, yooyu yëpp tey baraak yi dénk wala baraak yi seng ak i mbaar ak i kaas kare yooyu yëpp tey euh, ñoo ko daan defar muy atelier boo xam ne ba Basiiru nee na moom guddi lañ daan liggéey sëriñ bi ànd ak ñoom maanaa ñu ñu ñu ñu ñu ñu wax ñu taalibe yi segg kafe ay ay ay ay mbanay café ak meew ak ataaye euh, ñu leen ko servir ak xeeti bernde yu baree bari sëriñ bi topp ci ñoom di jàng alxuraan di leen soññi ñuy liggéey muy atelier boobu nga xam ne lépp loo xam ne lu jëm ci dëkkuwaay ñoo ko doon def eh, sëñ Mbacke Diouf jiite ko waaw loolu mu amaat nag beneen atelier boo xam ne tey fa tabarakallah moom it ca soxna ya la woon beneen métier boo xam ne soxla yi muy ràbb ak suub soxna yi gannaaw njàngale mi ak yarub diine bi itam sëñ bi da leen a waxal ne as gorkat bu góorul ci amul lu mu góorul ci dara mën naa gor ngorom wala wala wala diineem mën naa jaay ngorom wala diineem kon nag bépp métier moo xam ne dëppoo na ak seenu nekkin rek e, loola lu mu mën a doon lu ne daf jaraan soññee moo waral loola soxna yi moom muy waa bar sax joxoon ci modèle am na ci ñoo xam ne tey dañoo recruter woon ay ràbbkat yoo xam ne tey ñoo ñoo leen di ràbbal ay sor ay sor e, yoo xam ne tey dafay am motifu góor am motifu jigéen muy muy daraay rabal ju góor ak daraay rabal bu jigéen tay baas bu wala camisole bu rabal eh, boo xam ne tey am ay motifs yu rafet yoo xam ne foofa lañ koy ràbbee eh, am ci ñoo xam ne ci wàllu suub gi la ñu spécialisé woon nga xam ne ay coupon la ñuy daggee eh, ca ay coupon yu yu yu coton la ñuy piis yooyu la ñuy la ñuy jëlee ci biir jënd ci biir dëkk ba dagg ko ay coupon di ko suub mu am li ñuy wax rombal am palmaan am baxa am rombal am yooyu yëpp muy couleur yu baree baree bari yoo xam ne tey couleur yoo xam ne tey yu varié bu dee bu dee ci uni couleur unique bi waaye bu dee ci jigéen ñi day am takk lu ñuy wax takk dañuy fexe bu wutal ko ay motif boo xam ne am na système bu ñu ko daan lu ñuy wax takk nga day am ay motif pour jigéen ñi lu ci nekk lu ne eh, ak période am mais lépp nag clientèle bi seex si la dara génn génn kër seex su mag si demee si Issa Dieng ñoom suñ Aliou Touré suñ Balla Fally Dieng suñ Mën Numbe ñooñu ñoo ñoo ko daan commandé E, mu nekk loo xam ne tey tabaar fa kàll ay maal lañ ci lañ ciy commandé e, muy loo xam ne tradition la boo xam ne ci njaareem ba léegi ba dans les années 70 néew na kër goo dem ci njaareem e, te fekkoo fa maanaa ab ràbbkat boo xam ne kenn ci soxna ya fa des moo ko recruté mu di ko ràbbal loolu nga gis ba ci soxna Faati Xujja way juru soxna mbenn ngaabu bi nga xam ne moom ngaabu la nekkan Eh, moom it bi mu ñëwee gis eh, soxna yi kat ñu yëngatu ci loola eh, mu permettre leen nag contribution bi ci góor ñiy def ci wàllu lépp lu ñu sumb surtout ci te juróom-ñett yi ci jumaa ji jumaay Tuubaa ji wala jumaay Njaaréem ji bu ñu koy liggéey lépp loo xam ne lu ñuy xitma la boo xam ne ci wàllu dajale alal la ñoom jigéen ñi kenn mënu leen ci woon te la ko waral mooy mooy loole nga xam ne tey dañ ko doon def ci activité loolu moo taxan mu waxan soxna Faati Xujja bi mu ko laajee ndigal ca loola moom it gis nga ko da ko wax ne ko ba mu ko joxee ñaari mbuus yooyee da ko ne lii na ko na ko jëndee ak jur gu gàtt muy ay bëy eh, ak i xar eh, ak i ganaar di ko yar waaye li ci des na nga ci wut eh, wut na nga wut lu ay bandi suubu ak wut yu lay ràbbal ngay boole di di di di di ràpplu ak di suublu ak yooye loola itam nga di ci yëngutu ne ko boo demee ba tono ji Eh, ba ba ba tono ji tono ji eh, nga mën caa liggéey muy bénéfice bi eh, delloo sil ma ndey ji muy capital bi te téye bénéfice bi nga xam ne loola lu yéeme la loo xam ne tey façon muy investissement bi ñuy def muy jàngale liggéey nga xam ne fa tabaarakallaahu loola it nekk tradition boo xam ne dafa continuer di yaatu ba gis nga soxna doom yi boppam yi jox nga soxna muslimatu gis nga fabrigam bi mooy li ñuy def formation transformation Euh, produit alimentaire euh, tey gis nga ko ni mu xewee soxna mos ba mu koy def kenn xamut kii la woon te la ci gën a yéeme moom mooy bay dafa aman ay toolam yoo xam ne li muy transformé muy dugub ji ak mboq mi ak sëp ñi ak lépp loo xam ne lu aju ci lu ñuy lu ñuy kii moom moo koy bay euh, aman ay tool ay hectare la yoo xam ne boobu tracteur amut mais ab cible la la jëndan wax benn ministère ma taali benn tëgg mu defal ko ci benn baar boo xam ne wutal ko ay lonk yoo xam ne dañ ciy mën a lonk lu ma juróomi machine sib bi di ko dawal eh, léegi gerte ga muy bay ak dugub ja ak sëb ña ak eh, mboq ma ak lépp loo xam ne lu muy bay foofu moo koy transformé waaw nga xam ne deman na ba am na ay at yoo xam ne gendarmerie nationale moo leen di fournir cere eh, dem ba aj màkk gi booba màkk demeegutoon nii kuy dem da nga yóbbaale ab yóbbal bateau bi moo daan dem jamono jooju ñu baree bari commissaire général bi buy dem eh, dañ koy commandé maanaam ay ay ay saakoy cere pour yóbbaale ko pour pèlerins yi ak yooyu loolu lépp aman na ci deman ba eh, signé woon sax benn kii ak benn societé allemande boo xam ne dafa spécialisé ci wàllu alimentation pour ñu war a mën a taxawal benn fabrique fii mu andil ko ay machines yu yu am kii ak i ak i ak i ak i formateur mu former xale yi ci anam goo xam ne dañuy mën a exporter li nga xam ne da koy kii ba loolu moo waral këram gii nga xam ne moo nekkan ci ci ci ci aynu e gis ngeen tabax bu rëy ba mu fi bàyyi woon nga xam ne aw sémb la woon boo xam ne fa lañ warante fabrique bi ci boppam loola di lu yéeme nga gis e, soxna moominatu itam e, fa tabaarakallaahu moom itam nekkan ci Eh, koo xam ne ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ràññeeku koo xam ne moom itam ci wàllu recruté woon na eh, moom laa doon laaj eh, mbokk mbokk bi léegi sax mu mu di ma wax tey góoru maanaa tukkulóor googu nga xam ne tey ndeysaan moom moom moo ko moo ko moo ko moo ko recruté woon ci jamono Sëñ Fallu moo boole woon ak moom mu nekkan ci kiyam dama dem ba tuddee ko doom nga xam ne pour mu di ko ràbbal nga xam ne dema dema dem ba ngi dëkk foofu ci occas eh, dem ba di ko di ko di ko tuddee doom ba kóllëre gu rëy rëy jaar seen diggante te la leen boole woon mooy mu di ko mu di ko ràbbal eh, eh, ay ay ay ay sër yoo xam ne ci ay ay ay ay ay façon yu baree bari lay comme nañ ko doon defee ci njaare muy tradition boo xam ne bu bu continuer woon nga gis soxna xarit Juba Jaxate nekkan kër Cheikh Mawone Mortala Eh, nga xam ne moom itam eh, njaareem la yaroo nga gis moom itam ni eh, école la aman ci wàllu suub ba léegi tey ñi génn ci biir école am te moom foofa la ko foofa la ko kéen nga xam ne tey ñi génn ci biir école am ci wàllu suub ci suub gi gën a ràññiku ci la ci la woon nga xam ne loolu fa tabaarakallaahu yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu lu lu yaatu la loo xam ne koy ci formation professionnelle boobu tey ci ci wàllu gépp nga xam ne mouridisme kon daf cee daf cee daf cee contribuer bu baax a baax te jëlee ko ci njàngaleem sëriñ bi e, ci e, surtout ci e, période njaareem bi fa tabaarakallaahu loolu nekk loo xam ne tey ba léegi mi ngi dox. ñu gis tey soxna maam Faty e, bu soxna moom yi e, fa tabarakallahu moom itam mën nañoo wax ne moom moo héritier loolu e, am na ay salon international yu bari ci agriculture yoo xam ne tey yàgg na cee participer waaye ay salon agriculture yoo xam ne ci fii ci réew mi wala ci bitim réew am na ay médailles yu bari yuñ ko jox ci wàllu googu ndax xarala gu mu am ci loolu ak sell gu ci ab liggéeyam sell te li ëpp ci li muy kii lépp it eh, moom li muy def lépp ni ko ni ko way juróom eh, wa doon defee eh, soxna Musli moom it noonu la koy defee di ko di ko mooy li ci ëpp lépp moo koy bay moo koy moo koy produiral boppam wala ba di ko transformer ko muy lu yaatu loo xam ne tey wax dëgg yàlla ci biir yoon wi loolu euh, dafa nekk formation professionnelle dafa nekk loo xam ne dafa barkeel Eh, ba léegi tey da ngay gis ne tey métier yooyu tey eh, tey ñi ci gën a ràññeeku tey lépp fa tabaarakallaahu ci njabootu eh, yoon wi la ñu bokk ndax dafa nekk tradition bu yàgg te dañ ko révolutionné sax xam nga ñaw bu njëkk dañ daan wax rek ah tailleur de moom ñaari bu màggatee rek métier la moo xam ne métier ndaw la boo màggatee rek daanaka nangam mais fa tabaarakallaahu njabootu yoon wi ñoo jiitu ci ñu ko révolutionné muy El Hadj Ndama Fall. ak alaaji ahmad ba ahmad ba seen ñooñu ñëpp di ñoo xam ne ay njabooti kii di originaire bawal piir eh, kii di originaire u kajoor ñuy njëkk a ñëw fii eh, yoroon fi seen i atelier yu ndaw dema dema dem ba eh, transformé ko ba mu nekk entreprise léegi tey gis nga tey Sénégal Broderie ak Mandel Couture tey di ñoo dem ba waxuma la sax biir Sénégal ma mais mais euh, euh, sous raison bi ci boppam ay Nigéria ak yi yëpp tey fii la ñuy fii la ñuy ñëw di jënd ay kii di dañ ko ba ca eh, waaw loolu lépp yu bare bari seeni ministres yi ak fii la ñuy jëndee dama dema dem ba mu nekk entreprise boo xam ne tey waxuma li may yi ci emploi rek kenn ku ne ay centaine de personnes eh, nga embauché di leen fay salaire boo xam ne tey même ñi gën a diplômé sax mënuñu koo am E dem ba fa tabaarakallaahu te ñoom ñëpp ci nga gis soxna Faati Mor Gueye moom ci jigéen ñi nga xam ne moom itam police nationale ak gendarmerie daanaka at mu jot e marché bi moo koy moo koy gañe ngir xarala gum ci xarala moo leen di moo leen di kii muy ko Couture moo leen di ñawal ñoom ñëpp bokk ci <laughs> njaboot gi e nga gis ci wàllu ministère yi sëñ Moustapha sëñ Moustapha Fall bant nga xam ne moom itam Moustapha Fall bant nga xam ne moom itam Eh, sëñ Mahmoud Fall way juróom bokk ci ñu yaroo njaareem ci kër sëriñ bi eh, fa tabaarakallaa sëriñ bi yar ko nga gis moom itam ci ñi ñi révolutionné wàllu ministère yi fii la ci façon bu yéeme boo xam ne tey liggéey yi muy liggéey tey ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy yéeme eh, waaw waaye nga gis gannaaw bi itam Sénégal kii ministère yi Xaadimu Rasuul dégg nga boiserie Xaadimu Rasuul muy muy Eh, Ndiaye ak eh, Guèye muy Ahmed Ndiaye ak eh, Cheikh Guèye ñoom ñooñu ñëpp tey di fa tabarakallahu di ñoo xam ne ñoom it ñu ràññeeku ci wàllu googu la euh, muy ministre yi Xaadimu Rasul ak bu waa Sëriñ Xaadimu euh, euh, di di loo xam ne ci wàllu googu itam ci ñi ci gën a ràññiku gën ci yéeme la nga gis ci wàllu aluminium gis nga Sëriñ Seck <laughs> fa tabaarakallaahu moom itam bokk ci ràññiku ba donte am na yeneen kii sax loolu daanaka moo moo moo moo moo moo kii nga xam ne ci ñi ci gën a ñi ko njëkk njëkk kii ci fii ci Sénégal la ba ñu baree bari tey fa tabaarak fekk si ko ci te loolu lépp itam di wàllu métier ak wàllu xarala eh, goo xam ne tey eh, sëriñ bi daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko jàngale ci biir yoon yu muridisme itam mu am ci wàccuwaay bu rëy boo xam ne eh, dafa rëy nga seet ne loolu dem naa dem a dem tey ba yaatu tey kilifa yi diine yi tey décoration bi fii ñu nekk tey ci jumaa ji décoration marocaine muy ni ñu koy décortiquer pour la première fois mu am ci Sénégal muy grande mosquée Dakar bi bu ñu ko defee te andi fi te andi fii ñi nga xam ne ñooy eh, ñooy kii hmm, hmm, waaw eh, waaw hmm, te andi fii eh, naari marocain yi waaw maanaa andi fi naari naari marocain yi ñu def ko bi ñu defee ren ba àggal ba inauguré ko <coughs> Serigne Cheikh Gaynde Fatma ma jël naar yi indi leen njaareem pour jàkkay ji nga xam ne ci la sëriñ bi daan jullee muy jàkkay boppam ji nekkan ci biir kër gi eh, yàlla dogal eh, mu mu mu war koo defaraat yeesalaat yeesalaat jàkka ji ba àggal ñu war cee def décoration marocain boobu léegi mu am ku ñox Moustapha Mbay koo xam ne bàyyam mbëkk néeg la ci kër moo dekkan ci kër ga mu boole ko ak naar yi mu ne ko rek boolewuma la ak ñoom ngir ngay tibb a comme ndox rek di leen jox damaa bëgg lii tey bul jàpp ne tey da maanaam ay ñoom ay malaaka la wala wala liggéeyu malaaka la déedéet ay doomu aadama lañ ni yow ak xarala goo xam ne tey lus di jàng man ko la kon dama laa boole ak ñoom ngir nga jàng ko diir bi ñu koy def ba ëllëgati si bu ma ko soxlaatee du ma du ma du ma soxla ay marocain yàlla defal ko ca tawfiix ba nga xam ne mu man ko manin woo xam ne ba mujj sax dàq ko marocain yi ba mujj tey waxuma la ci biir réew mi wala sous-région bi sax loolu tey gis nga tey jumaa ji bi ñu koy defar même bi ñu fii nu nekk tey bi ñu bi ñu rek ko joxe benn entreprise boo xam ne Turquie itam ña ëpp ci ñi mu ñi ñi mu recruter ñuy liggéey ñëpp ci ci ci ci ci ci ci ci école Moustapha Mbaye boobu ci lañ génne ba léegi tey Sénégalais yi euh, Moustapha Mbaye tey ñi ña génne woon ci école ay entreprise la ñu yor yoo xam ne jumaa yi gën a rafet tey ci ci Sénégal ci décoration bi ñoo ko ñoo ñoo ko doon def muy loo xam ne fa tabaarakallaahu loolu it ci wàllu métier eh, tawfiix bi ci sunu borom defal eh, njabootu eh, sëriñ bi ba luñ ci jàng rek dañ koy man loolu dafa wàcc si ba nga xam ne fi mu toll kër yi sëriñ Seex donga yi yemu ca donga yi yiy tërbiyewu ci ci ci ci daaree tërbiye ca àll ba waxtu wuy liggéeylu moo xam tabax la moo xam carrelage la moo xam décoration la moo xam lépp loo xam ne ci liggéeyu kër la day daan jël lenn ca dongo yi indi boole ko ak ñooñu ñu jàng ko bu bu alëkkatee du ko soxla loola it dafa yaatu fa tabaarakallaahu noonee mu ko doon defee sëriñ Moustapha Bassirou euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké Falilou rakkam yooyu ñooñu ñëpp tey fa tabaarakallaahu ñoom it loolu lépp dafa nekk loo xam ne dañoo dem a dem ba yoon wi tey e, kilifa yu baree bari tey la ñuy deflu ca seen biir kër moo xam tabax ba moo xam karalaas ba moo xam peinture ba moo xam électricité moo xam lépp lu aju ci loola ña koy def ay donga la ñuy doon yoo xam ne ca biir kër ga la ñuy def du du ci duñ ci jéggaane leneen loolu tey nekk na loo xam ne tey fa tabaarakallaahu yaatu na e, ba kër yu baree bari liggéey yañ fay liggéey muy jàkk wala jumaa wala ay dëkkuwaay dañ lay wax ne amu ci lenn loo xam ne du lu dongay kër gi moo moo ñoo ko def gis ngeen sëriñ Saliou Mbacke radiyallahu anhu ci xel koom Eh, amul dara loo xam ne donga yi mooy donga yi ñooy ñooy ñooy ñee ñoo nekk mécanicien yi nga xam ne eh, tracteurs yi bu yàqoo ñoo koy réparé eh, oto yi ñuy liggéey foofu ñoo koy réparé lépp jumtukaay yi ñuy kii itam bu kee ñoo ko ñoo koy liggéey ndax dañ leen di jàngalaale loola ndaka noona dëkkuwaay yaag yëpp itam muy tabax baak seng yaag yëpp itam taalibe ñoo koy def nga xam ne ku fa jógee na ko sëriñ bi waxee woon da ngay am sa diine am sa taalibe waaye bépp métier moo xam ne dafa lié ak sa vie quotidienne danga koy xereñe ba doo ko jéggaani di ko wuti feneen kon mu mel ni kon formation euh, professionnelle daal lu lu yàgg la ci lislaam seexal xadim jëw dundal ko euh, ba def ci loo xam ne fa tabarakallahu lu yéeme la waaye ñu gën ko mën a gën a yaatal nag euh, ndax maa ngi doon wax te foofu lay daaneele e yàgg naa ko wax ci ay jataay yu baree bari di ci di ci ñaan e ne buñ ko defan tey lu baree bari ci xëyum ndaw ñi e dana gën a wàññeeku te itam eh, taalibe yi tey lii xew tey muy xale yi nga xam ne dañuy cëppeelu maanaam tarbiye gi mi ngi bëgg mu ngi bëgg a néewati léegi eh, daanaka ci recensement yi ñuy def ak enquête de terrain yi di en tant que ay sociologue dañuy gis ne ñu bare bari ñiy dem ci daara yi tarbiye yi ñi ci ëpp ñëpp tey eh, seeni doo ay ay ñu mësëragun lañ doon ngoo xam ne xàmmeeguñu seen way jur rek takk leen yóbbu leen waaye néew na mukallaf mu xàmmee ba ma sœur am lu war a mat ñaar fukki at fi ñu daal demee tërbiye laxasaa yu dem dem ne day tërbiye wu ji waaw ay gone yoo xam ne daal yilifaguñ seen bopp ñoom la ñuy ñi ci ëpp ñoom la ñuy jël yóbbu te ko ci xàmmi ba man daal rek doo xaar sax ñu yewe la da ngay daal cëpp cëppeelu dem loolu li ko waral nag mooy mooy mooy mooy ñàkk espoir bi ci boppam ndax tam comme mbay rek lay lañ lay jàngal foofa eh, ngay jàng foofa mbay mi boo ci jógee daanaka doo doo doo mbay bi ni mu demee léegi Eh, loola waaye su fekkante ne nag te xam nga bu njëkkaa eh, mbay moom eh, juróomi weer la weer wi ngay ruuj ñetti weer yi nawet bi ak weer wi ngay récolter di góob wala ngay deqi bàttali mu juróomi weer juróom weer yëpp dongo yi dañu daan ñëw ci la ñu daan takk sàkket kër yi takk ay néeg yu bees yeesalaat yooyu ba ruuj yi jot ñu di ko def muy loo xam ne formation professionnelle ab liggéeyu kër la léegi nag comme may wax ne amagul néeg yu ñuy takk léegi amagul ay sàkket yu ñuy yu ñuy yeesal léegi seng sax amatu kër yëpp dañ koo miire néegi ñax yëpp transformé nañ mu nekk ay tabax kon léegi dong yi e, juróom-ñaari weer yooyu dong yi juróom-ñaari weer yooyu maanaa duñ am dara lu da am dara lu ñu def lu may di wéree du màjjaal wala yooyu loolu laa doon wax ne juróom-ñaari weer yooyu su fekkante ni daara ju nekk dañoo am xeeti métier yooyu yëpp nga xam ne dañ ko ciy jàng ci biir juróom-ñaari weer yi e, noor bi comme niñ ko doon jànge niñ ko daan defee bu ñu bu bu jógee ca tool ya juróom weer yooyu ñu def ko ci métier yooyu e, fa tabaarakallaahu tey bu ñu nee tey màggal sàngam am na ñu ne kat e, nañ dem ca foire wala exposition bi nga xam ne tey moom la dongay tarbiya yi def ca lal yu rafet ya ñu defar armoire ya E fenêtre ya buntu ya e, e, salon ya ñu def muy ci wàllu tapisserie ja yooyu yëpp ñu wane ko taalibe yi jënd ko loolu day day day mën a day mën a dooleel daara ja dooleel kii ja te ku ca noppi tey da nga doo yàkkamte yeewi ku ndax xam nga ne am nga métier mu wóor moo xam ne boo noppee mën caa dem loolu lépp man maa yàgg naa cee wax te loola mooy dundal li sëriñ bi doon def kon ngi ñu dundalal sëriñ bi doon il faut tey biir daara yi tërbiye yi ñu boole ci formation professionnelle ndax formation professionnelle mosu see ñàkk nawet bi lañ daan bay waaye noor bi lañ daan liggéey lépp ci wàllu kër gi ci wàllu formation professionnelle métier yëpp dañ leen ko daan jàngal dañ ko daan xere la ba bu ñu delloo mënal seen bopp loolee nag mën nañ koo moderniser dëppoo ko ak jamono bu ñu ko defee fa tabaarakallaahu eh, dana tax dongo yi gën a sawaraat ci wàllu tërbiye yi ndax dañ leen xam dañ leen di tërbiye ci wàllu yàlla ci wàllu seen jikko waaye dañ leen di tërbiye ci ay métier yoo xam ne tey buñ ci wàccee it eh, danañ mën a am fuñ sukkandiku ba duñ tumuraanke loolu bu ko defee ñu wutal leen ay marché yoo xam ne te marché benn gën cee marché yi taalibe yi taalibe yi nekk Italie yi nekk euh, Espagne yi nekk France yi nekk États-Unis yi nekk Afrique du Sud ñoo ñëpp tey li ñuy at mu jot di ñuy tabax ci ay kër di soxla ay buntu soxla ay fenêtre soxla ay giri eh, ñi ciy takk soxna soxla ay chambre à coucher ñi ci lu ci nekk lu ne tey eh, tey sa marché sa sa sëriñ bu fekkante ne tey eh, daara ja at mu jot Eh, fabrique la buy fabriquer loola tey ca ngay gën a sawar ci jënd ko pour encourager ña fa nekk loolu daal en tout cas mooy yalwaan ji nga xam ni maa ngi ko yalwaan eh, ñëpp pour ñu gën a mën a delloosiwaat formation professionnelle eh, surtout ci daara yi tër bi ngir mën a delluwaat dundalaat li fi sëriñ bi bàyyi woon kon daal lii mooy ci xam naa ci gàttal góor googu ma doon. ma doon wax maa ngi fàttaliku tur béy di la tudd góor ak tukkulóor googu nga xam ne moom la soxna moomi eh, yoran nga xam ne moo moo ko daan ràbbal bay di la tudd di nga xam ne tey ku wala réeg moom la ba tuddee koy doom yooyu yëpp tey fa laa kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf